baa ngi nii mu ngi noonu di dem pont ah, bi mu ngi nii di dem so di nga gis ne ah, fu mu nekk nii ah, right now góor bi nag moom mu ngi wax who is responsible who is responsible rek la moo wax di laajte ne nit yi lii daal corrected ne ñu ngi leen bàyyi ñoom ñu nekk nii rek toog di leen yóbbu quarantaine te boos baa ngi del del del ak ay nit yéen a ko gis jamono ji lii nag moo xew si Banjul International Airport ah waa ji nag moom mi na mu ngi jóge all the way Sweden mi ne du mun a dem ah ki nga xam ne nag mooy eh, APS